place de l'obélisque ndawoon na ngir dalal ñi nga xam ne d'accorduñu ci ñetteelu candidature bu président Macky Sall jafe woon na nga am yoon ci yoon yi nga xam ne moo jëm ci bile bërëb ñu amale mobilisation wu ay junni junni militant ñëw wuyu si ci wooteeb F24. Ousmane Sonko mel na ni ku wutewul bile mbooloo ndax nag mbooloo bi su déggee turam rek dafay dal di sànnee ko Khalifa Sall di njiitu taxawu Dakar moom itamit ñëw na ci bile ndaje bi muy yëkkati kàddu maire honoraire bu ndakaaru ndaw yi dañu ko yuuxu bu baax a baax waaye ne lu ni mel jaaxalu ko yeneen leader tamit def nañ leen lu ni mel bokk na ci député Pape Djibril Fall bu mouvement les serviteurs ci ndimbalu El Hadj Malick Ndiaye bu Pastef les patriotes moo doon woote ngir manifestant yi dal waaye naam public bi ñu ngi ko doon juuxu waaye député bi jël ngir critiquer régime bu Macky Sall. comportement bi yenn militant wu Pastef yi am dafa juddoo ci bataay médiatique bi nga xam ne fan yi Barth ak Sonko koy amal moo tax li xew tey jii ci ngoon ji ca place de la nation bu doon sëy moo dox diggante Pastef ak taxawu senegal tas na.